moom moomee moo naan kii laa bëgg mu doon sama maire te Abdou Lahat Ka moom moomee la tabb dool ne nga xam ne moo di maire am kookee nga xam ne mu jiite Touba am na ci yu bëri yoo xam ne askanum Touba ngañ nañ ko moo di moom moomee anim gi nga xam ne noonu la nekkee Touba maanaam dëgg-dëgg am na si yeneen attente wala leneen li nga xam ne moom lañ ko doon xaar benn mën nañu wax ne li koy waral dëgg-dëgg xam nga lan la moo di Touba dafa rëy li koy waral xam nga lan la moo di uh, nindi rek dafa yaatu boo ko bëggee yor wala te bëgg a yor jannatu maxwaa ñu rafetlu Touba ca kanam liggéey ba mu tey def tey fii Touba ca kanam tàmbalee ba fi mu yegsee ñu mën a wax ne tey modèle économique bi Touba ca kanam wane modèle économique bi nga xam ne Cheikhna Ahmadou Bamba Mbacké moom la wane te yaakaar naa ne son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye war na see jàng jànge xam lu tax modèle économique bu moo di lan na kenn ku nekk andi dërëmam ñu def ko ci dara ngir loolee am résultat ngir ñu am ngërëmal Seex Seex na Ahmadou Bamba bu ñu xoolee même modèle économique la li nga xam ne moo di Pastef def modèle économique bi Pastef def mooy lan dañoo def nekk andi loolu koppar googee moom la ñu am tey ba yeg si si li nga xam ne mooy di si nguur gi mais tey ma jàpp ne Touba ca kanam googee dañ ko war a jàppale xam nga lu tax au moment où ñoo ngi wax ak yow bëri na si ay gox yoo xam ne daaw si moment bii ndox ba bëri woon na fa tey jàppal ne Touba ca kanam liggéey na fa liggéey bu am solo goo xam ne tey dañ koo pavé tey Touba ca kanam mën nañ wax ne bëri na ay gox yi nga xam ne ñoo ngi ca Touba def nañ fa ay poste de santé ak i centre de santé bërëb bi nga xam ne moo di Touba bëri na si ay gox yoo xam ne amoon na ay jafe-jafe la ko waral moo di éclairage public bi nga xam ne amu fa woon tey bi ñu seetloo ne Touba ca kanam bi mu ñëwee dërëm ak dërëm yi nga xam ne ñoo ngi koy récolté si képp koo xam ne moo di sénégalais nga murit nga jàppal ne loole am na résultat boo xam ne am na ca Touba ca kanam mbébét yi nga xam ne am na ca te loolee ñu seetlu ne ñaareelum visitum son excellence ba Diomaye Diakhar Faye am na ca loo xam ne moo la ca méngoo moo di gis nga ni Touba ca kanam bi ñëwee dañ ne la tàmbale ca Mbàkke dugg ba Touba dañu tournée bi nga xam ne moom la Mbaye Tooñ ne murit yi est-ce que bu ñu teelul jug seen mbir ndax duñu jël Touba gi def ko li nga xam ne moo di forêt classée en fait lu muy wane mooy taxawaay bi moo di yitte bi mais sincèrement buñ ko waxee sawaay nga xam ne Touba am na fu mu yegg si li ko ko andi moo di dayo bi ñu rafetlu lenn li nga di fi nekkoon liggéey na ko mu di Macky Sall mooy autoroute à bi nga xam ne tey mën nañu wax ne mën nga def une heure trente ñëw waaye bu ñu waxee sincèrement dëkk bii di Touba am na si loo xam ne ñu koy dund mérito ñu ko Touba mérito na ni ñu xoolee Médine di ko xoolee waaye bu ñu xoolee Touba fi mu yegg si ba tey dëgg-dëgg du xaalisu nguur dëgg-dëgg moo ko fi yegsee li ko fi yegseel moo di seeni dërëm ak dërëm beneen bi mooy mu doon dëkk boo xam ne dafay bëgg a wane moom dayoom xalifa bu ñëw dafay bëgg a ne liggéeyum bi liggéey bi nga xam ne Seexina Ahmadou Bamba Mbacke bàyyi na ko fi moom moomee bëggul mu bàyyi suuf loola tax mooy da ngay seetlu ne saa su ne dañuy réfectionné saa su ne dañuy yokk saa su ne dañuy àndi mais au delà si Touba tey tungu ne du teew ñuy nataal xam nga tey bu ñuy wax wàllum inondation boo taxawee bërëb bi nga xam ne mooy si juuma bi nga dox ci yenn gox yi du bëri da ne dëgg-dëgg ne am na si ndox bi dafay tax nit ñi duñu mën a dem daaw dama rappel wetu këru Serigne Assane am na fa oto yoo xam ne amoon na ay jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñuy wax ak am na benn oto bu ñëw sécurité bi moo ngi fii te bu ñu xoolee mën nañu wax ne si délégation bi la bokk lool nag beneen oto ñëw naa loolu lu muy wane mooy est-ce que dans peu de temps ki nga xam ne moo di son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye du ñëw ndaxte mën nañ wax ni ginnaaw gi ñu ko tabee mu nekk euh, njiitalum réew mi di Sénégal ñu mën a wax ne première màggala ma ngi fii. le ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine euh, euh, Jean Baptiste ñëw na le ministre de l'intérieur moom it am si rôle bu am solo boo xam ne da ko war a jouer fii ndaxte bu ñu waxee Touba dañuy wax si wàllum sécurité. Eh, eh, eh, moo ngi noonu le ministre de l' intérieur jean moo ngi ñëw vêtu en guéri yëre wolof la def ñëw gis nga ne moom dafay ñëw ndaxte ñëw ñëwam dafa doon lu am solo xam nga lu ñu wax màggal màggal màggal dafa am li tax ñu naan màggal ndax mën nañ def màggal foo xam ne sécurité amu fa ndax mën nañ fa am def màggal foo xam ne dëkk boobee askan wi nga ne seen xel dalul ndax mën nañ def màggal si dëkk boo xam ne oto yi buy dem di ñëw dafay am ay jafe tey role bi nga xam ne Jean Baptiste Tine moom moomee da koy joué moo di lan nan la ñuy def ba dëkk bii di Touba ñu sécuriser ko ba nga xam ne si yenn gox yi boo ko seetluwee réew mi di Sénégal bu ñu xoolee dañoo bokk si Afrique de l'Ouest te Afrique de l'Ouest am na lu bëri loo xam ne moom lañ daan wax sénégalais yi ñu doon woowee ay terroristes amu fi mais boo xoolee aux alentours si gox yi nga xam ne moom la ñu nekk Afrique de l'Ouest bëri na si ay dëkk yi nga xam ne yëngatu na ci te tey dañu seetlu ne dëkk yooyee ñi nga xam ne ñoom ñooy woowee seen bopp ay jihadistes dañu seetlu ne si ay bis yu mel comme nii nii yu yaatu ñoom ñooñee la ñuy def li nga xam ne moom la ñu bëgg a def tey nag jàppal ne ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb il est loolu li muy wane ne moo di léegi ñu julli li nga xam ne moo di tàkkusaan xam nga ne bu tàkkusaan jotee si dëkk bu tedd bi dëkku seex naa Ahmadou Bamba bi rajo yi day sone wane ne heure julli jot na mais si côté sécurité boobu ni ko waxee ne xam nga ne dañoo war a sécuriser Touba. sécurité boobu de si bokk moo di kër gi nga xam ne moo di Serigne Mountakha Mbacké moom moom mais fala ne beneen bi mooy dañ ko war a sécurité xam nga lu tax dañoo nekk si dëkk boo xam ne dañ fi tere sinébar dañoo nekk dëkk boo xam ne dañ fi tere li nga xam ne moo di cigarette dañoo nekk dëkk boo xam ne dañ fi tere li nga xam ne moo di yenn jëfnukaay yi nga xam ne nit da koy jëfandikoo te it méngoowul war may li nga xam ne moo di dëkk bi tey Jean Baptiste Tine moom ak ñi mu àndal war nañ mën a def de telle sorte que muy sécuriser gox yooyu beneen bi mooy sécuriser bi da si bokk mooy am na ca yenn béréb yoo xam ne nit yi dañ fay nekk def fa occupation anarchique tey role bi nga xam ne Jean Baptiste moom la fay def mooy lan war nañoo dégager ba dëkk bi libre moo di ñi nga xam ne bëgg nañ dem ak dëkk bi ñëw te beneen bi xam nga ne bu période heure màggal jot mooy aux alentours jumaa ji ku amul laissez-passer moom moom du fa jaar rôle bi nga xam ne Jean Baptiste moom la fay jouer moo di tey moo di nan la ñuy def ba nit ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ñoo fii ñëw ndaxte ñu bañ di jël alalu jàmbur da ngay seetlu ne saa su ne bu màggal jotee wala après màggal da nga dégg ne ñu ne jàpp nañ si tant de personnes yoo xam ne ñoom ñooñee euh, li ñu def jaarul yoon ak la ci jëm beneen bi mooy aussi si wàllum si maanaam transport bi au delà El Malick euh, li nga xam ne moo ngi koy def comme jéego di ko liggéey beneen bi mooy fépp nit fi nga xam ne ñëw na fa dafay jóge moo di tey gendarmerie tey war na def liggéey boo xam ne mooy taxaw si tali yooyee euh, taxaw sécuriser waaye xool nit yi nan la ñu moo di jàppal ne ku ne da ci am wàll moo di màggal bee yaatu ki nga xam ne mooy ministre bi yor wàllum hydraulique Cheikh Tidiane Dièye am na ca liggéey bu nga xam ne moom la cee def El Malick Ndiaye moom mi nga xam ne moo di yor wàllum transport liggéey mooy nan la si def ba ñëpp ñoo xam ne dañoo bëgg ñëw si dëkk bi bañ am li nga xam ne moo di ay jafe-jafe bi nga xam ne moo yor wàllum économie ndaxte aussi au delà si màggal googee dafa am leneen loo xam ne moom la ñu def moo di si bis yi bokk na si bis yi nga xam ne li muy dugal si réew mi di Sénégal xaalis kenn xamul ñaata lay toll moo di au bisum diine bi nga xam ne moom la ñu ne bis bi nga xam ne moom la ñuy fàttaliku euh, Cheikh Ahmadou Bamba li nga xam ne moom la ca liggéey waaye dafa am liggéey bu am solo bi nga xam ne moom la ca def côté économique li nga xam ne ñoom ñëpp ñoo ci seen bopp xam nga ne koppar gu yaatu la xam nga ne nag yi nga xam ne ñoom lañ fi wàccee xam nga ne tey si wàllum